leen gërëm leen vraiment ci disponibilité bi ngeen xamante ne wane ngeen ko ci suñu émission bi le docteur euh, Fallou Niang dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. Ah, merci euh, Fatou Baba ñu leen di nuyu baax di nuyu say auditeur te di fas yéene ànd ak si waxtaan bi. Euh, sant ko gërëm ko moom docteur Niang sama ñangeen bi moom xam na dafa ndekki ba pare wala ndekkeegul ndax baat bi dafa xaw a dafa xaw a wàcc quoi <laughs> ñaa sant comprendre leen ko maman doy nekk Diop Samb sant la. gërëm la ci suñu émission bi di Rewmi FM. maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi ñu invité ci Rewmi FM di nuyu auditeurs yi di di ñuy déglu di sant ñëpp salaam. Euh, tàmbaleeg suñu docteur docteur Fallou Niang dañuy farataal di dégg spécialité bi di ORL ORL tey boo ñu doon définiral ORL ci anam bu gën a yaatu lan nga ñu wax docteur. ORL en fait spécialité la boo xamante ni seen spécialité médico-chirurgicale mm-hmm. mooy en même temps dañuy faj ay feebaru ak ay garab mais am na yoo xamante ne dañ koy opérer donc euh, li ko composé mooy otorhinolaryngologie moo la ñaa oreille nez gorge donc lépp feebar buy laal wàllu nopp wàllu bakkan ak wàllu baat mm-hmm. donc li tax nag ñi boole ñett yooyu soo xoolee du hasard ndax ñett yooyu d'abord dañu communiquer muy nopp bi boo xoolee xaw na communiquer ak baat bi communiquer aussi ak bakkan yi mhm. donc feebar yi daal yooyu aussi lu ci bëri benn rek du dem ak moroomam si laal ci benn pass rek dina retentir si beneen bi mhm. te nag euh, médecin ORL bi mooy lépp mooy médecin bi nga xam moom mooy faj feebar yi jëm si ñetti organes yooyu muy nopp muy baat ak muy bakkan bi mhm. euh, ñu bëggoon xam euh, après le baccalauréat Euh, ban niveau d'étude wala à quel moment ngay spécialisé wu nekk médecin ORL. de manière euh, globale comme mm-hmm. comme comme médecin spécialiste yëpp il faut nga def euh, sa huit ans de médecine. ba soutenir sa thèse après nga inscrire en spécialisation pour faire encore quatre à cinq ans pour nekk spécialiste en ORL. Mm-hmm. bon maintenant y a une exception mooy les internes ñoom au cours de leur médecine au-delà de la sixième année de médecine suñu réussir concours d'internat mën nañu inscrire automatiquement à la spécialisation donc mën na leen a faire gagner deux ans ou trois ans euh, de, de moins mm -hmm. mais la mais classiquement la am mooy da ngay def huit ans de médecine après nga def quatre à cinq ans de spécialité donc ça te fera entre douze à treize ans après le bac. Mhm. Euh, wax nga ko ci sa biir wax euh, seen spécialité bokk na ci li ngeen di fecc lu ci mel put euh, wala gorge ak lépp lu jëm ci wàllum narine muy wàllu bakken tey jii mu mel ni nit yi xamuñu trop trop trop seen spécialité boobu lan moo ko waral. bon c'est vrai que spécialité bi nit ñi xamuñu ko parce que buñ ko xamul tamit il faut se poser la question est-ce qu'il y pas suffisamment suffisamment doyareel parce que même ci wàllu feebar dañuy gis ni feebar yu bëri bu njëkk ba dañ daan wax ni amul amul mais parce que daaw ñu leen seet parce que ñu leen war a seet doyuñu woon mais actuellement quand même euh, mën ni xaw na euh, am nañu benn tuuti satisfaction ci nombre ORL yi parce que on est quand même à 64 mais nag li si doy waar peut-être un peu mooy euh, plus de 70 pour cent yi wala près ñu ngi biir Dakar te jusqu'à ce jour il y a beaucoup de régions yoo xamante ne amuñu ay ORL que mm-hmm. ça région de Fatick que ça soit Matam Kédougou Tambacounda donc zone yooyu yëpp amul Fatick amul ORL mm-hmm. te loolu day tax maladie yi ne foofu duñ leen mën a teel a diagnostiquer te day retentir si retard bi donc euh, mais euh, suñu xool yeneen dëkk région yi mag yi que ça soit Dakar Thiès wala ay Kaolack Saint-Louis ba Ziguinchor quand même am nañu au mois deux à trois ORL nga xamante ne nit ñi ngi def liggéey bu am solo foofu pour jéem a gérer yenn maladie foofu. docteur euh, ndax le fait que lim bi xam naa ne respecté wu leen Euh, lii di ratio bi nga xamante ne OMS teg na mais loolu aussi ndax benn instant mënul gën a compliqué li nga xamante ne moom mooy di liggéey. bon effectivement parce que nit ñi bëriwuñu. Mm. donc li muy indi mooy euh, ni population yi du ñu am malheureusement teel a accès ci médecin spécialiste bi donc day am lu ñu naan errance diagnostique mën nañu traîner lu yàgg te loolu aussi day retentir si rendez-vous yi même boo gisee ORL bi aussi pour nga jot si moom di nga toog ay weer. te loolu ak métit ak feebar dëgg yàlla du day doon lu lu lu xaw a doy waar par rapport ak ratio bi normalement OMS li mu recommandé mooy chaque cinq mille à cent mille habitants mu am benn médecin spécialiste donc ñun bu ñu xoolee un peu ratio ORL un ORL sur deux cent soixante cinq mille euh, habitants donc mm-hmm. jigéewuñu sax ratio bi wax dëgg yàlla bon maintenant nag à ce niveau je que il faut il faut ñu def si ay effort effort yi ça passe d'abord par la formation te loolu avec euh, le comité pédagogique d'ORL ak l'université Anta Diop vraiment ñi ngi def ay jéego yu bëri pour former léegi nguur gi aussi il faut mu jàpp au moins ci euh, euh, yombalal nit ñi formation surtout les jeunes sénégalais euh, parce que c'est vrai que ñu ngi may ay bourses mhm. mais euh, parfois bourses spécialisation bourse de spécialisation mais parfois yaa day am ay priorisation ci biir spécialité yi ñëpp mën nañu bañ a am wala ñi am lu lu ñu am lu doy donc loolu aussi je que c'est vrai que nguur gi mi ngi siy def ay ay efforts il faut le reconnaître mm-hmm. parce que d'abord doublé nañu montant bourse bi aussi nombre bi peut-être moom lañu war a gën a yokku su loolu weesoo aussi il faut ñu jéem a optimiser euh, au moins le corps des internes c'est comme li ma wax au début de mes propos. Mhm. Euh, médecin interne yooyu bu ñu àggee ay sixième septième année médecine dañuy def concours ñi ko réussir dañu tàmbali seen spécialisation mais ñooñu ministère de la santé mooy seen kilifa moom moo leen gérer. Mhm. ci seen wàllu nekkin ci seen wàllu njàng ak yu bëri te ñooñu suñu paree jusqu'à ce jour quand même dañuy ay mais amul benn politique bu nguur gi teg pour soit intégrer leen dans fonction publique wala fexe ba ñoom ñëpp ñu am leen fu comme ay en tant spécialiste ñu am yoon bu ñu leen tegal te loolu tamit je pense que en toute humilité il faut que autorités yi comprendre ko xam ni on a tous intérêt pour ñu jéem def ce travail de planification aussi bien pour les internes ak yeneen médecins spécialisation yi ñu jéem a xool ba ni former mu méngoo ak besoin système de santé en termes de nombre et autres xam ne su boobaa dinañ mën a rapidement affecte nit ñi mën leen a intégrer au bien au grand intérêt des populations. Mm-hmm. Euh, bu weesoo jàngoro yi nga filim mooy xam jàngoro gorge ak ne mu mel ni seen spécialité am na yeneen euh, feebar yu ci mel ni sinusite ak otite euh, bu weesoo loolu yan yeneen feebar vraiment le ORL concerné. ORL feebar lépp lu dal nit presque mën na laal ORL mhm. ndax am maladie infectieuse infection yi mën na laal presque yu bëri mhm. day laal. oral bi bu dee si baat bi mën a def ay angine bu dee si bakkan yi mu def ay sinusite bu dee si nopp bi ay otite ay maladie tumorale les cancers mhm. mën na laal tamit baat bi laal bakkan bi laal nopp bi également am na ay maladie malformative ay pathologie traumatique nit ki nga génn accidenté mu la donc mën naa ni panorama bi feebar yi du lu spécifique lépp feebar buy laal beneen organe spécialité presque mën na laal ORL donc muy lu yoo xam ay tumeur la ay infection wala ay malformation wala yooyu yëpp bon maintenant euh, peut-être ñun li ñuy gën a euh, li ëpp nag peut li ñuy gis en consultation la plupart feebaru baat lay doon ci étude récente yi ñu def mooy nit ñi wax ni sama baat dafay metti dafay métti maintenant méttitu baat du forcément angine soit du rek mën na bañ a doon méttit mais am na ñoom dañuy ñëw ni dañuy am gêne suñuy wanaasu mhm. wala day am lu baat bi def na la ñii ne dafay metti dafa am lu siy dox donc symptôme boobu moom moo ëpp lu ñuy gis ci consultation mhm. maintenant loolu li ko mën a waral tamit bëri na mhm. mën na nekk souvent rek ay ay moom mooy ay xerñee ñi mën na irrité baat bi parfois mën na ne angine c'est vrai bu amee yaram bu tàng wala muy metti mën na ne ay allergie mën na également euh, nekk ay feebar yu gën a grave mm-hmm. rawatina bu dee métit bi benn côté rek la nekkee métit daal benn côté kese te tamit yen saa muy ànd ak ay bul si baat bi yooyu moom fa ñuy xalaat yenn feebar yi gën a doy waar muy ay wala yooyu mm-hmm. donc daal mais symptôme boobu moom o ëpp lu ñuy gis mm-hmm. donc li des mooy li ma la leeral ci mm-hmm. wax ni rek yeneen feebar yu bëri mën naa laalaat aussi spécialité ORL bi euh, justement wax nga ko li ngeen di gën a am comme cas mooy euh, feebaru put feebaru put bi nag euh, du angine kese mais mu mel ni angine bëri na ñu muy sonal te xam naa balaa ñuy ñëw ci spécialiste bi il arrive que ñu jël ay antibiotiques pour calmer douleur yi wala des fois ñu dem euh, ci ñi nga xamante ne nañ ma baal nag du question pour stigmatiser leen mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy def ay fas wala pour wàññi douleur bi docteur ma bëggoon rek nga ñëwal ma ci wàllu woowu le fait que certainement ngay traîner ay angine te demoo ci spécialiste bi bu bu lawee lan la mën a jur comme conséquence il faut ñu xam ni d' abord métitu baat du angine métitu baat métitu baat la mhm. donc angine moom mooy infection boo xamante ne dafa laal benn partie bu ne si biir baat bi muy wax amygdale yi mhm. te lu ci bëri ñaar yëpp lay laalandoo donc mën na ànd ak yaram bi di tàng nga am jafe ngir lekk léegi loolu médecin moom moo koy gis wax la ko mhm. waaye du nit ki mooy ñëw dama am angine nit ki peut-être métit la mën a wax mhm. léegi nag li ñuy seetlu lu bëri mooy mën na indi retard de consultation comme li nga wax mën na ne sax de vraies angines parce que angine infection la donc ay antibiotique moo koy faj mhm. ci lu si ëpp donc bu fekkee défaut loolu ci bëri dañuy gis nit ñi ñëw à de complication soit angine bi dépassé ban def lu ñaan af sey wala flèche mu dem ba def dëtt bu bëri bu ne si biir baat bi wala dëtt bi sa parfois day génne ba laal ba àgg si dënn bi mhm. ba yenn saa nit ki wax dëgg yàlla dundam ak euh, euh, day engagé wu dañaa mhm. pronostic vital am mhm. donc te loolu bon c'est vrai que il faut que nit ñi teel a am réflexe di teel a gis spécialiste bañ automédication euh, nit ku ne am nga sa gëm-gëm te réewuñu kenn nga peut nga fas wala nga li nit ku ne yaay xool waaye tamit man nga boole ñaar yëp man nga man nga boole ñaari yeneen élément bi aussi il faut ñu xam ni dafa am feebar yu graaw yu ne si ginnaaw te ñun daf ñu sonal lool suñu pratique lu si mel ni cancer hypopharynx muy cancer boo xamante ne baat bi lay laal te dafa jige ak engine mhm. ndax ni muy tàmbalee mën a def métit mën a def yenn saa métit bi jàpp nopp bi wala lekk bi jafe mu tàmbali si lekk bu diis ay mburu ay ceeb dem ba gën bu gënee sori nag ba nga xam ndox wala lu ay ruy sax dootul jàllati. yenn saa yi mën na sax tàmbali indi ay jafe-jafe nooyi te ni muy tàmbali daal si ëpp ci wàllu baat bi la mhm. nit ki day ñëw naan dama am angine di ko traîner mhm. rawatina bu dee ni jafe-jafe lekk wala méthode boo xam benn côté rek lay laal di yàgg te jël nga ay antibiotique dañul sa nga war a ñaaw njoot mhm. ndax suñu suñu maître di suñu kilifa professeur Issa loolu lañ yàgg di wax que angine nu mu néew néew néew ci juróomi fan boo ko fajee dafa war a dem mhm. waaye su desee di ñëw ak ñëwaat ah rawatina mu muy laal benn côté unilatéralité bi dafa la war a alerter donc loolu lu lu am solo li ñuy mhm. war a xam te mhm. aussi di teel a consulter actuellement c'est vrai que ORL yi wuñu mais région yi mag yi bëri am na ORL te burul ORL yi sax ndax angine boo demee hôpital bu ne médecin généraliste bo ko gisee dina xam mën a la traité mhm. donc daal il faut que ñu gën a euh, ñaas askan wi ñu gën di teel gaaw di consulter di gën a teel a xool yenn docteurs yi. Mhm. ndax euh, prise en charge bu soxal euh, jàngoro yooyu yomb na. bon ça dépend si ban jàngoro la. bu mhm. fekkee maladie infectieuse yi ay angine wala yooyu loolu lu ñuy faj la ak ay garab. yàlla mën si def sutura lu mu bëri bëri juróomi fan dina wér mhm. bu compliqué tamit am na yeneen technique yu mën def waaye mën nañ am yaakaar mais mhm. euh, li ñuy gën a poser problème si prise en charge bi mooy peut cancer yi mooy bi wax sànq muy cancer de l'hypopharynx ndax li tax mu mu pose ñu problème c'est d'abord à deux dimensions d'abord cancer boobu xam nañ ko si àdduna bi du lu bees mais fépp si àdduna bi li ñu gis mooy cancer la boo xamante ni góor ñi lépp lu muy dal ñu am juróom fukki at jëm kaw te souvent dañuy naan alcool di tox cigarette. Mhm. donc loolu la ñu xam mais ñun Sénégal la ñoom benn particularité boo xamante ni buñ koy waxtaan ak suñuy naataangoo si ñoom dañuy jaaxle dañ naan loolu mënta nekk. Mhm. ndax ñun suñu cancer lipopharynx bi ñu am euh, maanaam moyenne d'âge bi environ trente cinq ans la donc âge bu jeune te lu si ëpp. soxna yi la ëpp lu muy sonal ak tamit yenn góor yi. Mhm. mais mais mais quand même ay xale la ñuy doon. te euh, beneen élément bi ñi muy dal si ñun naan ñu alcool tuxuñu cigarette li liñ si xool lépp ñu su bëri defuñu ko. Mhm. donc euh, loolu beneen profil bu particulier la. bon njort nañu tamit yenn yoo xamante ne wàllu lekk gi la mooy ay facteur alimentaire njort nañu lu si mel ni ay nit ku manqué deret bu yàgg si yow ci li ko ci ay njort la toujours njort nañu aussi yenn virus mel ne ay virus yi nga xam moom mooy joxe cancer butu njëlukaay si mhm. jigéen muy cancer de col mooy la HPV. Mhm. virus yooyu aussi am na ay études yu waaye ba léegi loolu se ay njort la yem. donc day laaj ñi def ay études de plus grande envergure yoo xamante ni yu fépp lay doon si réew mi ñi def ko ak suñ collègue waa santé publique waa anatomopathologistes ak ñëpp ñuy def ci wàllu recherche ak protocole bu leer ñi ñu mën a taxawal lool mhm. aussi dafa laaj financement parce que nit ñi peut-être yaafoo suñu suñu kilifa yi defoon nañu ay protocole de recherche yu bëri yoo xam man naa yàgg nag suñu chef de service du professeur Issa moom moo ko jiite woon uh-huh. donc nag depuis lors peut-être on attendait des financements pour mën a daxal loolu peut aussi peut-être si euh, ñaax suñu suñu suñu yi uh-huh. ngir luñ si gën a mën a jàppale ngir ñu mën a àggale recherche yooyu pour mën vraiment était facteur de risque cancer yooyu ndax lu lu lu ñu jaaxal la mm-hmm. ba si congrès bi passé bi ñuy présenté nit ñi dañu jaaxle mm-hmm. dañu bi ñu xoolee pays yi ñu jigee rek mooy Mali Guinée parce que Afrique de l'Ouest Afrique centrale mais dañu gis ni cancer yooyu ñoom xam amuñu ko xamuñu ko sax mm-hmm. te ñun moom mooy moom mooy cancer bi njëkk si ñun moom mooñ gën a sonal moo njëkk si ñun te le pronostic est foudroyant parce que ñi muy dal souvent bu ñuy ñëw fekk sonn nañu bu ñuy agsi service bi boo xoolee duñ ñu su bëri duñ dund ñetti at exceptionnellement nga si gis ñu dépassé trois ans donc mooy vraiment la survie est très très très presque quasi nulle à à cinq ans te loolu loolu doy waar la ba boo yéegee ba demee service ORL Fann boo xoolee mën naa ni chaque semaine di nga gis lu mu nee na ba ñeenti nit yu am feebar boobu tëdd si mm-hmm. te loolu nit ñi la te niñ dañ ci li koy ci signe bi manifesté lu si ëpp mën na nduru ay angine te du angine boo amee jafe-jafe lekk bu xaw a yàgg mu ngay lekk lu diis mu mel ne luy jafe nga naan sama pot gi dafa xat mu toog ay ñaari semaine ñetti semaine persister naa da nga war a dem seeti ORL ñu xool am na ay appareils yu pour xam lan moo ne foofu. Mm-hmm. buñ ko teelee gis faj gi mën na yomb waaye nag bu demee ba sori su bëri nit ñi bu ñuy fekk. ci ay jafe-jafe nooyi sax la ñuy ñëwee ndax lekkukaay bi dafa jig ak nooyukaay bi mm-hmm. donc bu feebar bi dépassé lekkukaay bi day dem ba envahir fi ngay nooyee dana nit ki am jafe-jafe nooyi ba bay loolu moo koy indi hôpital mhm. stade boobu day fekk c'est déjà trop tard souvent. Mhm. Euh, mu mel ni am nañu benn benn côté retard si je peux me permettre ainsi par rapport ak faj bi wax nga ko joxe nga ko fii ay exemple Mali certainement xamuñu yooyu te pourtant ñun bëri na ñoo xamante ne dañuy jóge si sous région bi ñëw defi seen étude après dellu euh, contradiction boobu aussi naka nga ñu ko mën a jàngalatee. en fait bi c'est pas parfois la prise en charge mais c'est par rapport à l'existence du cancer même li ma bëgg a expliquer mooy cancer boobu c'est une particularité du Sénégal mais yeneen pays ñoom gis ñu cancer boobu bon maintenant nag ça c'est pas ci ci ci niveau plateau technique bi ou ah, pas donc loolu moo war a tax ñun ñu xalaat ci ban particularité la ñu am soit si suñu wàllu lekkin mhm. suñu wàllu nekk waaye lan moo war a tax cancer boobu bëri fii Sénégal te c'est vrai que partout dans le monde nit ñi am nañ ko waaye ñoom ci koy am mooy li ma wax sànq ñi am ay juróom fukki at di tux cigarette di naan alcool mais ñun ci ñu ngi koy gis si ñun ay xale lañu te tux ñu cigarette naan ñu alcool mm-hmm. d'ailleurs même am na benn série benn étude bu ñu publié woon dans un grand journal scientifique boo xam mm-hmm. professeur Issa moo ko coordonné woon ci prévalence cancer hypopharynx ci xale mm-hmm. te Sénégal moom moom la plus grande série mooy partout ci àdduna bi ñu ñu ëppale presque cancer hypopharynx ci xale yi ba euh, congrès bi passé rek am na suñu yenn naataango yu newoon France bi moom bi muy présenté ñoom dañu xawoon a jaaxle ni loolu mënta ne parce que ñoom loolu mosuñu ko dégg donc loolu ça veut dire que am nañ particularité ñun au niveau national ci cancer boobu te cancer moom facteur de risque la mm-hmm. donc ça veut dire que il faut ñu xool yan facteur moom moo tax loolu noonu am fi mm-hmm. te ñun liñ si njortagul mooy wàllu manque deret bi ak yenn virus yi probablement am na yeneen facteur yoo xamante ni foo ñu étayer ko ci ak ay recherche yu yu jaar yoon ci wàllu xam-xam ba certifié ko léegi recherche dafa lourd mhm. ndax recherche dafa laaj financement dafa laaj ay moyens donc à ce niveau peut être nag dañuy gën a peut tamit ñaaxaat suñu kilifa yi suñu njiit yi ñu jéem a ñu gën see jàppale ngir ñu mën a protocole de recherche boobu ñu defoon ñu mën ci gën a gën a activé waat ko man see nekkaat ba mën a xam dëgg-dëgg lan moo koy waral mm-hmm. ndax suñu xamee lan moo koy waral dinañ mën a dégager des pistes de prévention mm-hmm. bu dee ay virus mën na am yenn vaccin bu dee yenn yi dañ mën def communication waxtaan askan wi te aussi dina mën am dépistage précoce ba ñu mën a teel a feebar yooyu mm-hmm. vraiment ni ñi xamaguñu ampleur mais bari na si dëkk bi te malheureusement le pronostic baaxul ni ëpp ñu muy dal mën naa ni su bëri dañuy mën nañu ñàkk seen bakkan ci fii ak ñetti at. Mm-hmm. apparemment kon communication bi war wala sensibilisation bi war ci jàngoro boobu dafa des bu bëri suma lu bëri d' abord si eh, xameen biñ ko war a xam des na. Mm-hmm. mais également. Euh, parce que euh, autorités yi aussi faaw ñu gën leen na sensibiliser ñu gën a bàyyi xel loolu te ega de manière globale lépp lu jëm ci wàllu cancer parce que euh, déficit bi ñu am aussi au Sénégal il faut le reconnaître mooy suñu données yi c'est un peu éparpillé te y a une cohésion une coordination dans la gestion des, des données mm-hmm. concernant les cancers donc li ñuy wax registre des cancers parce que amuñu ko te loolu moom mooy tax nga mën a xam actuellement ban feebar moo ñu gën a sonal ban cancer la ban spécialité lay laal lan mooy facteur de risque yi te loolu il faut mu am une coordination ba tey ki yeewoo Tambacounda bu dee dañ ko diagnostiqué cancer ñu mën ko dugal si benn registre boo xam yow di nga mën a xam tey que Tambacounda enregistré nañ tant de cas de cancer tey Thiès am na tant de cas de cancer tey lii ak lii chaque nouveau cas. li ñuy wax incidence mooy nombre de nouveaux cas par an ñu mën ko xam di ko suivre de manière dynamique mm. donc bu ñu gisee ni lii ban zone lay yéegee ban côté ban village wala ban ville ñooñu peut-être mooy seen particularité est-ce que dañu bokk ay mbokk est dafa am lekk bu ñuy lii dafa am usine bu ne côté est donc facteurs yooyu ci ngay mën a xamee ah nii kat am tel risque bu am bu leer bu ñu mën dem prévenir mm. mais il faut ñu def ay jéego yu bëri ci wàllu registre cancer yooyu gën de politique de santé c'est l'information sanitaire mm-hmm. donc système d'information sanitaire bu performant am ay données yu yu probantes yu leer yu dynamique loolu mooy un argument même pour l'autorité de d'orienter mm-hmm. mais loolu aussi a def yi euh, euh, merci beaucoup docteur euh, information yi am na solo xanaa rek dañuy tourner ci beneen fànn mi daal di fas yéene waxtaan ak suñu maman bi di doy nekk Diop Samb nekk médecin ORL waaye nekk aussi vice présidente bu société sénégalaise bu ORL euh, li koy sabab mooy e, semaine bu ñu génn euh, ameloon ngeen benn congrès bu yaatu yaatu boo xamante ne ci xibaar xam leen nañ ne dagle ngeen lu tollook euh, trois cents spécialistes yu jóge ci Afrique subsaharienne Maghreb ak France congrès boobu nag nekk trentième bi nga xamante ne amal ngeen ko ci atum quatre-vingt-quatorze amaloon ko ci deux mille un bu mujj bi ngeen amel ko euh, ci euh, le vingt quatre ak le cinq juin bu ñu génn maman ñu tàmbale rek euh, ci seen congrès boobu lan moo ko sababoon. waaw jërëjëf Fatou Baba effectivement congrès boobu ñu ngi ko doon amal ci vingt quatre vingt cinq juin deux mille vingt deux bi ñu génn. Mhm. ñu ngi koy wax congrès Sorlaf Sorlaf nag day ëmb kuréel boo xam day ëmb ORL yi nekk ci Afrique yëpp sawu jant ñiy làkk français mu doon suñu fuk ak ñeenti congrès. progrès buy am gannaaw bi mu amee 1994 ak 2001 bii boo doon ñetteel congrès ñu boole kook sunu congrès national mooy société sénégalaise ORL mhm. mu nekkoon ci fanweeru euh, congrès boole ko tamit ci beneen euh, congrès boo xam moom mi ngi woon ci quatrième congrès muy African Head and Neck Society mhm. loolu lu mu ëmboon mooy euh, ORL yooyu yëpp dañu dajale ci benn kuréel bu ñuy wax SORLAF mhm. ñuy mun a weccanteeg seen i xalaat seen i expérience di gën a jëmal kanam formation jeune ORL yi congrès boobu day su dajalee ORL yi ñu mun a am consensus suñu defee travaux yi euh, képp domaine bi nga xam ne ne pathologie ORL yi comme sànq ni ko docteur Fallou waxee ci mbirum cancer wala ci mbirum surdité wala ci mbirum infection aiguë dinañ mun a dajale seen xalaat ex boole expérience yi euh, mun a boole lépp am benn consensus nu ñuy fajee suñu patients yi. Mhm. donc day am intérêt du day am intérêt non seulement échanger ci diggante ORL mais tamit gën a soxal formation yu jeunes yi. Mhm. dinañ ko fa waxtaanee te loolu yëpp day am intérêt ci ci ci yi dina soxal patient yi. Mhm. Euh, laata ñuy xuus ci thème yi ngeen xamante ne développé ngeen ko euh, seen société bi ndax euh, sénégalais yi xam nañ ne vraiment am na benn société sénégalaise boo xamante ne jàngoro yooyu lay farataal di di di di gën a faj. waa xam nga société boobu. Uh-huh. société savante la. Uh-huh. doyewul ORL yi population bi di xam loolu. Uh-huh. population bi li mu a xam. di ñu war xam li am importance mooy ñu xam ne ne ORL yi ñu ngi fii pathologie ORL ORL mooy ni ko docteur Fallou sànq liy faj jàngoro yi nga xam ne day laal ci nopp di mhm. laal bakkan di laal put mhm. barewuñ nag gënoon nañ fi néew mhm. fukki at ca gannaaw ñaar fukki at ca gannaaw ay dañ leen mënoon compter sur le bout des doigts de c'était quatre cinq ORL léegi ñi ngi ci juróom benn fukk ak ñaar ORL mhm. te xam nga OMS li mu préconiser mooy benn ORL bu nekk pour vingt mille habitants euh, euh, ñaar fukk ki junni habitants mhm. alors que ñun ci soixante quatre habitants pour tous les Sénégalais ñi ngi benn benn benn ORL pour deux cent soixante cinq mille euh, habitants xam nga kon gab bi fort na torop déficit fort nit ñi war a xam du société bi ndax existé na société savante la boo xam ne ne ORL yi membre ORL yi ñi ngi ci di waxtaan di jëmale euh, pajum ORL yi pathologie yi laaj ORL yëpp kanam li ñu war a xam kañ mooy ORL existé na ku am problème mu nopp wala bakkan wala put bañ a nekk di trainer ci dispensaire yi wala comme ni nga ko waxee ci tradipraticiens yi ñu ñëw ORL teel ñëw ORL waaw kooku mais société savante bi ñi ko war a xam. Mhm. ORL membre yi ñu ci. Mhm. waaw mm-hmm. d'accord bokkoon na ci seen thème yi ngeen xamante ne développé ngeen ko bokk na euh, ci docteur am na sax euh, pàcc bu yaatu bum mu ci wax jëm ci wàllum cancer ORL yi mu mel ni nag fii bu ñu waxee cancer rek xel yëpp dafay dem ci peut-être cancer du col de l'utérus euh, cancer du sein alors que peut-être ci nit war a xam ci cancer ORL yi bari na mm-hmm. surtout donc cancer u hypopharynx boobu moo ñu gën a soxal parce que lu tax moo ñu gën a soxal day méngoog ak angine nit ki day yeewu suba teel putam di metti mu dem ci pharmacie ba jëndi garabam toog naan angine la am angine la am doo ñëw consultation fekk ne angine boobu waxuñu ne put bu metti rek put bu metti rek engine la déedéet mm-hmm. te waxuñu tamit put bu metti rek cancer hypopharynx la déedéet mais li tax ñu ragal ko su toogee angine bi am juróomi fan jëm une semaine nga koy faj te warul demal seeti ORL parce que en général dem ci dispensaire yi ñuy bind wala sax doo dem ci dispensaire da ngay dem ca pharmacie bi mm. ñu bind la antibiotique antibiotique balaa ñu koy bind du pharmacien moo ko war a joxe antibiotique docteur moo ko war a joxe moo ko war a prescrire docteur ORL moo ko war a prescrire mm. donc angine boobu su demee une semaine deux semaines ak i demee noonu mun na nekk cancer hypopharynx te ni muy dal xale lay dal fii dañu remarqué ne que ni su dee dëkku réew yi développé yi mhm. cancer ba ca góor ñi lay gën a dal te góor ñi am juróom benn fukki at jëm juróom ñaari fukki at ñuy tox di naan sàngara fii contraire bi la ñu remarqué ci xale yi yi am fanweeri at jëm fanweer ak juróom mooy moyenne bi musuñu tox musuñu naan mhm. donc loolu te cancer boo xam ne cancer bu foudroyant bu bu bu jéggi dayoo la mhm. su la dalee ñetti at su fekkee ne teeluñ ko faj te balaa ñuy ñëw malheureusement dañuy ñëw en stade dif suñ ko teelu la faj trois ans ngay dund mhm. walla doo ko weesu survie bi dafa néew loolu moo tax nu ragal ka kon xam naa moom mooy expliquer bu ñu bu ñëw euh, bilan bi xawa a un peu waaw bilan bi dina coûteux mais ñun liñ ciy gën a ragal mooy li nga xam ne ne bon di nga ñëw tëdd ci benn lal occupé lal te paj ba du ñu ne da ngay wër cancer boo xam ne su xasee ba installé wër ba day jafe. Mhm. waaw parce que diagnostic bi n'a pas été précoce. Euh, bokkoon na aussi ci seen thème bi ngeen développé euh, ci seen congrès bi ngeen amal le vingt quatre ak le vingt cinq juin bu ñu génn lépp lu jëm ci wàllum euh, endoscopie. léegi endoscopie faj la boo xam ne ne. kooku du faj sax genre. ay machine la ay tube yoo xam ne da nga koy dugal da ngay dem au bloc. Mhm. ça permet non seulement de def diagnostic bi mais de traiter aussi xam nga euh, ORL li ci bari ay cavité la bakkan pax la nopp pax la gémmiñ tamit pax la. Mhm. léegi endoscopie bi dañ lay nelawal yóbbu la bloc. léegi dugal ay tube yoo xam ne lumière ak lumière froide la ñuy xool ci bakkan bi dugal ak ay caméra mm-hmm. dina non seulement dana wane jàngaro bi mais tamit suñ ko waree opérer doo xotti dara lépp da nga koy def ak ay pince ak yu demee noonu nga nga xool cavité bi mu nekk ci put bi wala mu nekk ci nopp bi wala nekk ci bakkan bi mhm. waaw ndax am nañu euh, tout le euh, maanaam euh, dispositif nañ ko am nañ ko suñ ko waxtaanee ci congrès bi mooy am nañ ko mhm. xanaa di wax rek ne jéego yu bare bare bare def nañ ko ci ORL ñun bu ñuy doogu ñëw ORL mhm. yooyu yëpp presque amul woon léegi vraiment ORL développé na plateau technique bi développé na xarañ nañ ci matériel bi mhm. waaye yooyu yëpp am na fi. Mhm. dañ koy def. Mhm. Euh, am na euh, loo xamante ne occupé na aussi euh, ci seen pàcc bu yaatu jëm ci seen congrès bi maanaam lu ñuy duppee surdité mooy tëx. waaw muy tëx mu mel ni def ngeen sax euh, benn benn bilan boo xamante ne yéen a ngi wax ne eh, ci Sénégal euh, ñi muy laal. Euh, ëpp nañu wala ñu ngi koy xayma ci huit cent mille doomu aadama chiffre boobu maman lan nga ñu ci mën a wax laata ñuy xuus euh, ci jàngoro bi. waaw chiffre bi nag du sax ORL yee ko def. Mm-hmm. Euh, li ñuy wax AN ANSD. agence nationale de statistique ak démographie. ci deux mille vingt ñoo def euh, étude boobu saytu ci. Mm. ci population bi gis ne am na. huit cent mille malentendants au Sénégal euh, juróom-ñett euh, téeméer ak junni <laughs> yu yoo xam ne ne tax huit cent mille mm. waaw soo koy xayma bare na barewul ñun dañ naan sax est-ce que ëpp ko parce que man euh, affaire surdité lu ma soxal la man mm-hmm. depuis vingt ans dama ciy liggéey ci surdité mm-hmm. soo jëlee deux mille en deux mille neuf nekkul woon huit cent mille yu tëx on était qu'à quatre vingt mille yu tëx entre deux mille neuf parce que defoon nañ ay études yoo xam ne étude sommaire du woon ANSD mhm. ci service yi rek nañ ko defoon ci études yi ñuy def ak yu demee noon quatre vingt mille la nekkoon chiffre ba donc deux mille neuf ñi ngi ci deux mille vingt deux ñu wax huit cent mille sourds mm. te day gën a bare d'ici deux mille cinquante suñu amee à peu près trois cent millions de sour dans le monde. Mm-hmm. d'ici deux mille cinquante day doubler. dina nekk six cent million wala sept cent million de sour mm. donc suñu duggee ci biir euh, jàngoro bi dafa nekk handicap boo xam ne c'est un handicap lour moo gën a graaw sax euh, gumba tëx moo gën a graaw gumba tëx moo gën a graaw gumba mm-hmm. waaw mm-hmm. Euh, ci ci ci naka euh, parce que soo gisee yaa ngi naan duma ci xuus xaw ma ndax bëgg nga ma xuus si. Euh, <laughs> waaw waaw xam nga suñu nee tëx du tëp rek tëx day am ay degré. Mhm. niñ koy waxee ñun ci suñu suñu langage. dañuy wax déficience auditive. voire surdité déficience auditive day am ay degré doo am na tëx bu yemamaay am na. tëx bu woyof bu yemamaay bu sévère ak bu jéggi dayo ñu nag loolu soo ñëwee fii nuñ koy xamee dañ koy mesure day am appareil yoo xam ne yu koy natt mhm. su yemee nit ki su nekkee ci foo xam ne dafa bare ay coow foog mu tendre l'oreille pour dégg foofu dañuy wax rek surdité bi dafa légère déficience bi wàññee dégg-dégg bi dafa xaw a woyof rek mhm. su weesoo boobu ñaareel bi mooy moyen dafa xaw a tane noonu kooku foog mu am appareil par exemple am na perte quarante à soixante dix décibels loolu nattukaay la c'est pas important pour la population mais pour xam degré bi daal léegi kooku day foog mu sol ay appareil yu ñuy wax prothèse auditive pour mun a dégg mm-hmm. conversation nii ci waxtaan mu nekk ci réunion mm-hmm. léegi su weesee loolu nag su sévère kooku boobu fekk ne passé na soixante dix quatre vingt dix euh, décibels léegi kooku moom ay appareils yu puissant moo moo ko soxal pour mu mun a dégg du dégg dara cent appareil yooyu. Mm -hmm. su nag foofu lay implant cochléaire di ñëwee te loolu waxtaanee nañ ko implant cochléaire leneen la loo xam ne moom appareil bi dafa cher torop sénégalais moyen munu ko ndax day jar dix millions opération yooyu commencé nañ ko def fii am nañ association boo xam ne ne association pour l'implantation cochléaire ñi ngi ci jéego yi dem ministère ak i demee noonu kooku euh, association bi am na bureau yëpp mais amaguñu moyen yoo xam ne foog nu ministère jàppale ñu ci c'est l'occasion de faire un plaidoyer boo xam ne ne mm-hmm. voilà plaidoyer boo xam ne ne ñu ngi ci euh, tractation yi pour am récépissé ki demee noonu mm-hmm. mais loolu tamit foog nu ndax tamit xam nga buy su tojul du kenn du ko mën a jëriñoo foog mm-hmm. tamit médecin yi euh, ñi nga xam ne ne ñoom ñooy nekk sur le terrain mun a tamit wax li nga xam ne ne jàngoro yi ñoo leen gën a soxal mun koo yóbbu ministère ñooñu jàppaleen ci waaw euh, euh, tey jii maman wax nga ko surdité dafa bëri bu moyen ki tey boo ñu doon xaw a defal benn benn xaw a benn benn benn jàngat wala benn petite analise pour euh, ñi nga xamante ne eh, ñoom lay dal nga ñu ci mën a wax ñi nga xam ne ñoo leen dal xam naa danga dugg ci cause yi mhm. léegi nag cause yi bare na mun na nekk infection infection mun na joxe tëx mun na nekk euh, des problèmes génétiques moo tax li ci bare comme par exemple sëyante ci si seen biir mariage consanguin yooyu bare dañ koy dañ koy faral di gis mm-hmm. dina am tamit cause médicamenteuse yenn médicaments yi comme aminoside yi ay xeetu antibiotiques yoo xam ne ne ko jëlee Euh, taux bi ëpp wala li nga ci war a jël ëpp loolu médecin yi ñoo koy gën a xam daal aminoside mhm. population bi soo leen ne aminoside duñ ko xam mhm. aspirine bi su ëppee ci nopp tamit day joxe tëx aspirine waaw <laughs> antipaludéen yi léegi si ci bare sax palu yi bon même su barewul noonu bu mhm. njëkk ba ñi daan pikiir nit ñeeg ñuy jël waaw dinañ la piqûre lu bare yooyu tamit day day jàpp jàngoro am na tamit tumeur mm-hmm. am na tumeur yi tamit ak traumatisme nga am traumatisme au niveau de l'oreille mun na créer surdité mm-hmm. mais li ci gën a bare daal li ñuy gën a gis Sénégal c'est surtout infection yi ak euh, ki génétique yeeg yooyu mm-hmm. waaw looloo ci gën a kii am na xale yoo xam ne dañuy judduwaale tëx ñooñu nag ñooñu ñooñu gën a soxal parce que diagnostic soo ko teelee dépister def euh, dépistage précoce moo tax foofu tamit dañuy def plaidoyer. Mhm. parce que normalement waxtu wi ñu toll ci deux mille vingt deux waroon na am programme national de lutte contre la surdité ci ministère mais amuñu ko ba tey amuñu ko ba tey te jooytu nañ ko ba sonn. man en 2014 j'étais la coordinatrice d'un programme de surdité fii mhm. maam ONG bu ma doon bu fi ñëwoon di jàppale ci loolu maye naa plus de cinq mille cinq mille prothèses plus de deux mille six cent cinquante patients yoo xam ne appareil lañ kon nag tëddunu rek di nelaw ci affaire surdité mais foog autorité yi jàppale nu foog nu jàppale nu waaw justement moment par rapport ak parce que xam nga sud euh, li tax euh, dégg-dégg euh, am solo ci nit gis nga nopp bi tuuti na torop nit ñi ñàkkal nañ fay di nopp mais ci biir nopp bi mhm. am na ñaari pàcc Euh, yoo xam ne ne benn bi dégg-dégg la beneen bi li ngay taxaw pour am équilibre ak i demee noonu soo soo toogee nii wala ngay dox wala ngay tëdd yëpp nopp bee koy régler li ñuy wax vestibule mi ngi ci lépp mi ngi ci biir nopp bi. Mm-hmm. li tax dégg-dégg important ci xale dalay lay permettre nga euh, nga nga mën a wax soo déggul doo mën a wax. Mm-hmm. soo déggul doo mën a wax moo tax dégg-dégg c'est important entendre. nit normalement dafa nekk être boo xam ne c'est un être de relation da nga war a communiquer da nga war a euh, nekk ci àddina bi di di di di liggéey di participer ci économie bi mm-hmm. donc tëx boobu su fekkee ne ne y a trop de sour au niveau de notre pays loolu yëpp day répercuté sur le plan socio-économique mm-hmm. donc moo tax ñu war a jàppale ñu tëx ñooñu xale ba nag soo ko teelul jàppale wacc ko noonu soo teelu dépister ne kii dafa dafa tëx xale boobu du tekki du mm-hmm. nekk journaliste du nekk docteur mm-hmm. du nekk avocat du noonu lay tookee nekk un handicap loolu dafa war a euh, vraiment wees suñu dëkk bu mm-hmm. njëkk ba soo tëxee fatalité lay nekk nga toog sa kër ñu ne dafa tëx waaw wala dafa muuma fekk ne xale ba suñ ko teeloon a jël en charge ba tey dina tekki ci société bi poids ngay nekk ci société bi te loolu musiba la ci ci ci ci koom-koomu réew. Mhm. waaw euh, justement wax nga ko ci ci causes yi bokk na ci infection waaye tamit euh, bokk na si li nga xamante ne moom mooy facteur génétique ñu bëggoon xam rek euh, ndax li nga xamante ne moom moo di surdité maanaam tëx pay waajur yi war nañu mën a def ay ay ay test comme ni koy nemmeeku ci lépp lu jàng soxal wàllum jàngoro yi nga xamante ne dafay touché lépp lu jëm ci wàllum deret lu ci mel ni drépanocytose ba mën a amal ay ay tests certainement pour mun ko déceler. waaw moo tax ma lay wax ne ne association bi euh, pour l'implantation cochléaire day am solo. dina tax euh, nit ñi mun ñu mun a am moyen yoo xam ne ne ci maternité yi ñu mun a teg ay appareil yoo xam ne ne soo juddoo rek xale bi dinañ mun a dépister mooy dépistage précoce bi mhm. fu nekk nu teg fa ci maternité ñu gën a sensibiliser nit ñi nga xam ne ne dès foofu gynécologue bi wala sage-femme bi dañ koy former pour dépister euh surdité bi xale ba su juddoo rek nekk lii dinañ xam ndax tëx na wala taxul su foofu weesoo actuellement ni yooyu suñ ko amulee xale bi dinañ seetlu six mois soo defee bruit wala xale bi su gestuwul wala dara mais dañuy toog yàlla bu mu nekk taaw dañuy toog naan ah kii de xam naa comme amul rek xale ci biir euh, kër gi xëy na lool moo tax waxul wala lool moo tax fekk ne xale ba déggul su déggulee du mun a kii donc euh, foofu avant même ñuy am loolu moyen di dépister ci maternité ki demee noonu il faut que tamit maman yi ñu vigilant ci loolu soo amee sa liir soo su amee bruit du gestu wala yooyu léeg sax ñu dem ba deux ans ñu naan xale bi daal wala école lañuy doog a xamee ne dafa tëx kooku tamit ci négligence su parents yi tuuti mi ngi ci hmm. foog ñuy teel a seetlu xale bi surtout su waxulee xale su waxulee rek du parce que amul rakk wala amul nit ci biir kër gi environnement déedéet du loolu xale ba dafa am problème mu dégg-dégg hmm. waaw su ko defee nga daal di dem ci ORL bi suñ ñëwee fii am nañ machine yoo xam ne ne dinañ dépister xam degré bi fan la toll hmm. waaw Euh, euh, sànq wax nga ko tëx ak ak euh, muuma c'est bien ça ba xam dafa am corrélation wala c'est d'office ñoom ñaar comme lu ñuy wax ils vont de pair. ku ku dégul soo dégulee parce que suñu lay envoyé son lu tax lu tax ñu acquérir langage bi c'est parce que dañuy dégg. Mm-hmm. soo juddoo ba waxtu bi nga waree waxee su fekkee da nga tëx doo doo mun a acquérir la langage soo amee si tu es sourd tu ne peux pas acquérir le langage mm. donc foog xale bi mu dégg pour mun a wax. Mm-hmm. parce que information yi ngay recevoir ci kii bi ñu naan la papa maman ak yooyu ngay répété. c'est mm-hmm. parce que da nga dégg moo tax am na relation c'est vraiment benn relation boo xam ne ne c'est c'est c'est fondamental foog nga dégg la l'audition est indispensable pour l'acquisition du langage moom moo lay permettre nga développer sa intelligence moo lay permettre nga nga nga jot information yi jóge de l'extérieur di ñëw ci yow. Mm-hmm. sànq maman euh, yaa ngi wax euh, il faut que ñenn ci waajur yi ñu ñu ñu ñu vigilante seen doom su euh, su waxul wala suy réagir réaction bu yàgg ñu yóbbu ko ci ORL mais fii ñun aussi dañu xaw a am yenn pesanteur socio culturelle yi amaana ma yenn saa yi sa doom day feebar. Euh, la ngay dem ci spécialiste bi di nga toog toog toog ba à un certain moment le fekk que ñuy yéex dem euh, pour déceler jàngoro bi ndax aussi du gën a yéexal traitement bi aussi. waaw dina ko yéexal parce que su fekkee ne teel nga ko indi su dee teel nga ko indi plus muy dem tax bi day fay gën a moom mu ngi màgg. soo ko teelee indi ñu dépister ko su dee xale boo xam ne dafa war a sol appareil ñu solal ko appareil su dee ah, xale boo xam ne ne. dafa war a euh, ja am na leneen lu ñuy wax orthophoniste dañ koy yóbbu ci orthophoniste su dee degré bi comme ni ma la waxoon sànq ne la am na bu yem bu yemamaay ak bu euh, dépassé bu jéggi dayo mm-hmm. su jéggee dayo xale boobu day laaj ñu implanté ko implant cochléaire te boobu dafa cher mi ngi ju jar euh, fukki million kooku du ñëpp ko am donc su fekkee ne dafa ñëw ci fi nga xam ne dafa yeme may wala bu moyen bi rek dinga nga ko mën a solal appareil mm-hmm. même su fekkee ne langage bi euh, mi ngi jafe woon son yi mu daan génne barewul mm-hmm. danga nga koy booleeg lu nuy wax orthophoniste beneen euh, xeetu pàcc la boo xam ne ne dañ lay jàngalaat ngay kii ñu lay jël séance di la jàngal ngay wax naan la papa maman ngay acquérir comme ça langage beeg yooyu. Mhm. voilà. Mhm. loolu moo tax que loolu moo tax fokk soo seetlu ne sa doom tëx na doo xaar ba mu am fukki at wala ñaar fukki boobu dafay trop mhm. waaw loo gis rek ca njëlbeen ba nañ koy mën a lay faj ba di gën a gaawee que soo xaaree ba mu dépassé waxtu ba. Mhm. Mm. Euh, surtout si si faj boobu la ñuy wax nga ko xam naa ne di nga ko yóbbu si spécialiste pour mu koy aider un peu muy dégg di wax mais euh, euh, wayjur bi nga xamante ne le Sénégalais lambda bu bu peut-être bu xalaatee. fàttee que ne eh, bu ma demee dinaa fay consultation bi est-ce que du cher ba xam loolu aussi du xaw a pas dissuader sax mais du xaw a euh, ñàkk courage jox courage ñenn ci wayjur yi ñu ñu ñu ne ah xëy na suñu borom moo ñu nattoo doom boo xamante ne du du dégg tam aussi mam mm, déedéet <laughs> maa ngi profité ci eh, eh, ci ci occasion bi pour wax ne ni ñu jàppee kër docteur du noonu consultation ORL mm-hmm. junni lay jar junni lay jar du ma néewal nag junni bi ndax am na ñoo xam ne ne junni boobu day jafe ci ñoom mais junni boob soo ñëwee ci biir hôpital bi am na assistance sociale mm. soo ñëwee ne mënuma fay junni dañ lay orienté ci assistance sociale bi mm-hmm. assistance sociale bi daal di ne kii kat cas sociaux le ñu faj la junni de defe naa barewul noonu su amee tamit ñoo xam ne bare na ci ñoom soo ñëwee tamit kër docteur dinañ la faj parce que tamit mm-hmm. euh, docteur yi laabiir nañu. Mhm. ORL yi laabiir nañu trop soo ñëwee dinañ la faj waaw waxuma nag soo ñëwee mu gratuit parce que tamit hôpital bi foog mu <laughs> foog mu suqaliku waaw la santé n'a pas de prix mais elle a un coût waaw waaw waaw. waaw nañu nañu nañu góorgóorlu xam ne ORL yaa ngi fi ñu gën a xam suñu spécialité daal. Mhm. ku sa nopp di metti wala sa put wala si bakkan. na nga ñëw ORL parce que li ci bare li ñu gën a seetlu dañuy nekk ci dispensaire yi wala ci centre de mm. santé yi wala ci waaw waxuma nag généraliste xam nga soo euh, nekkee généraliste comme da ngay jàng huit ans après nga def sa spécialisation cinq ans surtout soo nekkee ci dëkk boo xam ne ne am na ay ORL lu mel na Dakar presque soixante dix pour cent ORL yëpp ñu ngi fii. waaw on est soixante quatre mais soixante dix pour cent yëpp ñu ngi fii. su dee ñi nekk maa ngi leen di ñaan à travers émission bi. Mm-hmm. bu ñu nekk rek ci généraliste yi je n'ai rien contre les généralistes bu nu nekk rek to ku nekk dafa am spécialité man ORL la ku ñëw ci man bëtam di metti dama lay orienté ci sama collègue bi nekk kii parce que maa ngi dakaar léegi nag soo nekkee ku Kulikoro nekk Fongolé mi wala Kédougou ak yooyu foo xam ne ne amul ORL mën nga njëkkee ca généraliste bi te moom su gisee ne lii dépassé na ko dalay envoyé ci ORL waaw foog nit ñi tamit di xam ne ORL am na ñu ñëw su dee paj paj bi teel nga ñëw ci ngay gën rek amee satisfaction mm-hmm. waa mais maman euh, loolu tout à fait xam naa yéen ñi nekk ci le corps médical yéen a koy xam mais par exemple le le sénégalais lambda bi am douleur dem euh, ci généraliste bi moom dafa il ne peut que se fier par rapport ak euh, li ko traitement bi ko médecin bi di di prescrire ba yenn saa xëj na mu mu mu mu mu traîner quelque part faj bi daal di gën a compliqué que d'habitude. déedéet du compliqué parce que généraliste bi nga koy fekk. médecin la bu def sept ans. Mhm. ci sept ans yi lépp ngay jàng di nga jaar ORL di nga jaar gynéco di nga jaar voilà mhm. su fekkee ne rek war na seeti spécialiste docteur boobu dina ko orienté ci spécialiste bi mhm. waaw. d'accord boo ñu doon wax euh, lépp lu jëm ci prise en charge euh, soxal euh, lii di surdité xam naa ne sa spécialité la ndax yaa ngi koy wax ak ak plaidoyer yi ñu yaakaar ne rek message bi ñu ko wax a dégg dinañ ko dégg tey maman boo ñu doon wax rek. Euh, sa plaidoyer wala sa cri du sa cri du par rapport ak lii di surdité euh, à l'endroit des autorités à l'endroit donc des parents waajur yi lan nga ñu ci wax. sama cri du cœur mooy rek maa ngi koy répéter des années. Mhm. waaw xëy na tamit dañu war a dem ci autorité yi ak yooyu parce que defoon nañ sax benn programme boo xam ne pour lutte contre kii euh, la surdité mooy au niveau du ministère qu'il y ait un programme national de lutte contre la surdité loolu mooy sama cri du cœur envers les autorités mm -hmm. envers les parents bul am sa doom rek mu tëx nga seetlu ne dès le bas âge kii déggul rek nga ne fatalité de kii de maamam déggul woon wala mamaati maam déggul woon jógal donn déedéet dañ koy faj soo ko teelee jël en charge parce que li ci bare cinquante pour cent surdité mënoon nañ ko éviter suñ ko teelee gis teel diagnostiqué prévenir ko prise en charge bi day yomb donc soo amee sa doom mu tax ci sa biir kër bul toog rek ne fatalité la kii de lii daf ko dal ndogalu yàlla la déedéet da ngay jóg dem ci ORL yi soo ñëwee dinañ ko diagnostiqué suñ ko mënee faj nañ ko faj mhm. incha allah mhm. mhm. euh, justement euh, sur ça ba xam euh, traitement bi dafa nekk par moment wala dafa nekk traitement boo xamante ne dafa nekk un traitement à vie ça dépend ci surdité bi nga waaw léeg-léeg léeg même ñàkk dégg bi mun na nekk bouchon de cérumen nga toog déggoo parce que pour defee ne rek tëx rek mooy déggatuma damay toog à vie na nekk sa bouchon de nga toog sa kër sa nopp bouché nga ne dégguma soo ñëwee suñu xoolee ci suñuy appareil bi dañuy gis ne bouchon surmène suñ ko lavé mu dem après da ngay dégg su dee tamit infection moo la tax nga tëx tympan ba fëq nga am infection tympan bi fëq loolu tamit su ñëwee soo traité ba pare ba ba nopp bi wow dañ koy opérer li ñuy wax tympanoplastie nga déggaat mm-hmm. léegi nag yi nga xam ne ne moom nañuy wax surdité vraiment loo xam ne ne dafa soxal appareil dafa soxal intervention implantation cochléaire kooku beneen pànd la kooku day fekk ne dem nga soit yéex nga ñëw wala nga judduwaale ko foo loolu implantation cochléaire benn euh, intervention la boo xam ne nag c'est coûteux. Mhm. commencé nañ ko def yaa depuis 2012 première implantation bi ñu def tubaab yee ñu ko defaroon léegi sénégalais ñi ngi koy def fii service ORL bi ñu ngi koy def euh, Euh, principal ñi ngi koy def donc ci privé yi ñi ngi koy def mais c'est coûteux kooku tamit plaidoyer la li ma lay wax sànq ci sama début kii ne la am nañ association boo xam ne ne professeur euh, Abdourahmane Tall ko jiite boo xam ne pour implantation cochléaire kooku tamit dañuy lancer plaidoyer ah, autorité yi dimbale ñu jàppale ñu nga xam ne ne dinañ jël euh, pàcc moo xam ne ne ku fi ñëw tamit ñoom ñooy mën a fay kii bi une partie de euh, du coût des dix millions parce que sénégalais lambda mënul fay dix millions ci intervention te loolu am na solo parce que xale yoo xam ne ne ñuy tekki ëllëg la mm-hmm. c'est comme euh, au Sénégal c'est une population jeune je crois qu'il faut prendre en charge jeunes yooyu ndax ñooy nekki l'avenir de demain Euh, ngeen amaloon congrès le vingt quatre ak le vingt cinq juin euh, ci semaine bi ñu génn rek la yàggul dara tey boo ñu doon defal rek benn petit synthèse par rapport ak euh, recommandation ak li nga xamante ne xaw na tukkee ci seen deux jours d'échange yooyu j'imagine que nekkoon na ay échange yu am solo lool li koy firndeel mooy li mu regroupé woon ci doomu aadama xawoon na takku aussi waaw xanaa di di di di rek ndaje bo ndax te ndaje bu am solo la woon doon euh, fukki ak ñeenti ndaje donc euh, réussite la waaw euh, réussite boo xam ne ne ñun dañ cee sant suñu borom bi lool réussite sur le plan scientifique programme scientifique yi richoon torop ndax waxtaane nañ bépp jàngoro bu jëm ci urgence bépp jàngoro bu jëm ci euh, bakkan rhinologie bépp jàngoro bu dem ci endoscopie ak ci surdité bi implantation cochléaire ak yooyu donc sur le plan tamit participants yi ñëw ñi ngi naan ñetti téeméer mais ëpp na loolu euh, nekk na quatre cent participants laboratoire yi parce que tamit suñ nekk kër docteur ñi ngi faj set waaye garab yi tamit day am ay laboratoire ñuy assister mm-hmm. laboratoire yi fa nekkoon rek eh, mët nañu fukk ak juróom laboratoire yu ñëw assister ci congrès bi mm-hmm. pays ñëw tamit bare nañ lool su duma lim mm-hmm. ku lim jum plus de fukki euh, réew ak euh, juróom ñett ñi ngi woon présent donc échange yi aussi amoon nañu richesse boo xam ne ne par qui passait par de table rondes de symposia mm-hmm. vraiment euh, satisfaction nañ ci am bi ñu paree dañuy def rapport rapport boo xam ne ne def nañ consensus lu mel ni infection respiratoire yi def nañu symposium boo xam ne dañuy dajale ñëpp jëlee fii Sénégal jëm bele région lan ban Euh, bactérie wala ban virus moo gën a fréquent ci pays bi ak i demee noonu nun koy fajee ñu dajale yooyu yëpp xam-xam yooyu yëpp daal di ne lii la ñu jël comme canevas consensus amee consensus boo xam ne ne lii la ñuy fajee lii lii la ñuy fajee lii mun a boole suñu effort yi partager ensemble yëpp dans l'intérêt des populations. Mm. Euh, mu mel ni congrès bi am na benn plus bu leen yokkal. waaw effectivement am na plus euh, am na plus li ma lay li may wax rek depuis vraiment on a une grande satisfaction succès la te ba léegi ñu ngi recevoir félicitations yeneen dëkk yi mm-hmm. ndax du woon Afrique rek tubaab yi tamit mm-hmm. ñëwoon nañu mm-hmm. ñoo xam ne ne dañu ñëwoon amoon na tamit ay euh, conférence yoo xam ne ne tubaab yi mënul ñëw joxe nañ conférence par Zoom vraiment ça été un succès defe naa dina gën a jëmale paju Sénégal surtout paju ORL kanam. Mhm. waaw euh, docteur euh, Fallou Niang euh, ñu rebondir ci loolu rek mu mel ni bokkoon na ci seen thème yi ngeen choisiroon lépp lu jëm ci wàllum urgence médicale jëm si congrès bi ngeen amaloon tey lan nga ñu ci mën a wax rek par rapport ak urgence médicale. bon par rapport ak thématique yi ñu abordé woon cancers. am noon urgence yi l'endoscopie en ORL ak la réhabilitation de la surdité maintenant urgence ORL yi foo ñu xam ni bëri na comme les autres urgences mais li si ëpp quand même il euh, des urgences infectieuses yenn feebar infection yoo xam mën na dem ba sonal nit ki mais aussi ay urgences traumatiques comme mm-hmm. nga génn accidenté wala également les li ñaan les plaies pénétrantes du cou mm-hmm. te loolu ak émeutes yi mën na am nit ku ñu cor jaas yi ci baat bi wala nit koo xamante ne peut-être da xaru yooyu yëpp mhm. souvent ay urgence traumatique la yoo xam bu mhm. ñëwee ORL la ñoom ñoo lii mhm. te nag si kaw urgence yooyu juróom nañ see waxtaan ci ay comme ni ko docteur Doniang ay symposium yoo xam tenir nañ ko Euh, def ay communication service ORL yi ne Sénégal ak partout dans l'Afrique ñi ñëwoon ku ne partager aussi sa expérience ci wàll woowu ak nan lañ koy fajee. Mhm. Euh, euh, j'imagine ci issue congrès bi am na ay recommandations comme ni ma ko laajee moment bi tey mhm. et yi ngeen jot def ci à travers un consensus lan nga ci mën a wax. bon recommandation yi d'abord li si njëkk mooy d'abord partager les expériences partager nañ expérience yi maintenant y avait ay ateliers yoo xamante ni defoon nañ ko lu si mel ni si wàllu infection respiratoire aiguë de l'enfant donc loolu ndax dañu gi seetlu ni euh, infection yooyu noonu ay doomu jaamu jàngoro yi koy joxe dafay différer en fonction des pays mais dafay différer aussi en fonction de la localisation mm-hmm. donc moo tax ñu defoon atelier boobu avec euh, les les collègues de la Côte d'Ivoire ak aussi des autres pays de la sous-région euh, am na liggéey yu ñu defoon fii Sénégal di éplucher dossiers yu bëri pour xool feebar yi nga xam ay feebaru infection yi jàpp bakka nopp ak baat yan doomu jàngoro la ëpp yu ñuy décelé mm. donc def nañ ko sur une étude de dix ans aussi ils ont fait pareil ñëwee ku ne exposé ngay données mais bi li tamit li si bëri mooy ñooy presque même écologie bactérienne bi mooy boo xoole même feebar infectieuse ne fii yooyu la ñuy gis ci fee nag am nañ tamit leneen lu ñu seetluwaat mooy li ñaan infection nosocomiale am na ay germes yoo xam ay germes nosocomiale lañu mooy germe yoo xam lu si ëpp ci hôpital nga koy jëli donc loolu aussi dafa gën a laaj peut-être plus peut-être de ni gën a bàyyi xel yenn yenn mécanisme de désinfection yi et autres. Mm-hmm. infection noso bi nga wax doo ñu ko mën a pour mu gën oyof ci ki ñuy ki ki ki ñuy déglu maanaam mooy. en fait infection nosocomiale moom mooy infection boo xamante ni ah. xam nga hôpital lañ fay faj. mais aussi hôpital milieu boo xamante feebar yu bëri dafay daje mooy nit mën nga ñëw pour tel feebar mhm. après nga jël fa beneen infection boo a dend lal mhm. wala si lu ñu xam la mhm. mais loolu quand même nit ñi ni ngi def ay jéego yu bëri ci wàllu décontamination ci fréquence yi décontaminer service yi ak matériel yi et tout vraiment loolu mën naa ne réalité la partout dans la monde il y a des infections nosocomiales donc seetlu nañu aussi am na ay germes bëri yoo mën nañ ko imputer si loolu mais li ëpp quand mooy gis nañ nañu feebar germe yu bëri ci yi ñuy gis mën naa ñu ñoo ko bokkale te loolu dina gën a yombal wala faj mi te aussi dinañu dimbali ñu xam kañ lañ mën a joxe antibiotique kañ nga war a euh, peut-être bañ a joxe. Mhm. ndax dafa am lu ñuy wax phénomène d'antibiorésistance. mooy nit ki booy jël ay antibiotique comme ni ko suñu mbokk yi defee yenn saa di jël rek damay jël amoxicilline wala damay jël tel mhm. garab mhm. bactérie alors que antibiotique yooyu du ay tàngal donc ay ay ay médicament la. Mhm. boo koy foowee di ko naan lu bëri mën na dem bu dootul la fajati te pire que sa mën na dem ba euh, indi antibiorésistance ba feebar yi grave yi sax yi nga xam mën nañ leen a faje ak yomb dañuy dem ba dañuy miin antibiotique yooyu ba dootuñ leen fajati. Mhm. soo moytuwul dañuy dem ci antibiotique yi gën a kawe. Mhm. te yooyu bu ñu fa tàmbalee àgg day demande day devenir une menace euh, pour la sécurité parce que mën na dem ba euh, ci wàllu faj. wax dëgg yàlla affaire yu simple pour nga faj ko faa dem eh, utiliser ay moyens yu mag mi ngi mel ni rek bu ma la ko naataangal benn eh, banditisme bu ndaw bu am ci wàllu ci koñ mm-hmm. bu ñu demee ba nit ñi miin nañu peut-être force ba mënatuñ ko faj ba banditisme bu amee sax dañ naan il faut que force spéciale wala armée bi ñëw donc loolu ça devient dangereux te loolu moom mooy antibio résistance mm-hmm. Euh, kon askan bi bu yoboo ñu bàyyi xel bu baax a baax ci le fait que ñuy jël jëfandikoo antibiotique pas bu ñu la prescrire sax mais bi nga xamante ne ya yaa jàpp ne am naa douleur antibiotique moo may fecc effectivement mooy automédication c'est dangereux te loolu si atelier boobu quand même gis nañu également que mi ngi tàmbalee am que germe yu bëri antibiotique yi ko doon faj ñi mhm. ngi tàmbalee am résistance te mhm. loolu aussi benn constat la boo xam gis bi. Mm-hmm. donc su loolu weesoo aussi amoon na yeneen ateliers yu ñu def comme liñ suñ njëkk wax ci ay cancer yi. Mm-hmm. muy cancer de l'hypopharynx def nañ si atelier ak symposium mm-hmm. waxtaan si am na yeneen yu ñu def aussi ci ay wàllu yenn faj yi ñuy faje surdité mooy l'implantation cochléaire comme li ko docteur Dene wax ndax ndax implantation cochléaire boobu mën naa ne moom mooy presque gold standard wàllu traitement mooy traitement de pointe bi xam moom moo gën a performant ci yenn yenn surdité yi nga xam c'est des surdité profonde bilatérale ci xale donc te loolu euh, wax dëgg yàlla liñ ciy santé mooy am na Sénégal xarañte bi am na fi mën nañ ko fay def muy hôpital Fann bi hôpital principal hôpital Diamniadio ñu ngi koy def peut-être limite bi mooy l'accessibilité parce que mhm. dina la dikkee dix millions plus bu loolu weesoo aussi euh, rééducation orthophonique bi ne si mhm. ginnaaw ak suivi bi donc mën na ba quinze millions loolu tamit faaw je que ñu ñu ñu see jàppale gën a subventionner matériel boobu mais surtout mettre en place benn cellule de lutte contre la surdité. Mhm. wala benn programme au niveau du ministère la santé boo xam dinañu gën a a coordonner action yooyu. Euh, waxtaan bi am na solo mais dafa mel ni lu ñu tëraloon ci kàddu gu mujj. bon sama kàddu gu mujj mooy peut-être di di gërëm sant wax dëgg yàlla sant aussi suñu suñu kilifa yi. mooy commencé par docteur Doy nekk dëgg mhm. yàlla te également ak chef de service fan bi muy professeur Issa Cheikh Ndiaye. Mhm. ak ñeneen ñi fi nekk ñëpp xamante ni mosuñoo jug. ci ci ci d'abord ci ci ci xeex boobu muy wàllu lépp lu jëm ci wàllu feebar yi laal askan bi fi may wax ak yow ñu su bëri si ñoom sax ay mag lañu waaye dañuy dem ay mission humanitaire ci biir région yi di ànd ak dem di opérer ay malades dem di faire de la prévention muy taxawaay bu rafet boo xamante ni dëgg yàlla mën naa ne ay ay modèle lañu ay ay référence lañu ci ci wàllu woowu mm-hmm. leneen li tamit peut être dinañu dinañu remercier yàlla ñëpp ñi nga xam jàpp nañ si congrès bi muy présidence de la république mm-hmm. dëgg yàlla njiitu réew bi jàpp na si lu am solo ba lépp mën a taxaw ministère de la santé si taxaw na si lu bëri avec euh, ancien ministre fi noonu ministre Diouf Sarr moom moo ñu doon lu mhm. bëri via son directeur de cabinet monsieur Alphonse mhm. mais également ministère de l'enseignement supérieur jàpp na si lu bëri ak waa université doyen de la mhm. faculté de médecine jël na mettre la disposition université faculté bi yëpp presque si ñun muy amphithéâtre yi ak toute son équipe ils étaient sur place pour jàppale ñu yàlla daal ci kàddu yi la ñuy mujjee te yéen tamit di leen sant bu baax di leen maman mm, waaw di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di sant d' abord auditeurs yi ñuy déglu. di la mm. sant yow mii ñu taalal sa micro. di commencer di euh, remercier suñu chef de service di professeur Issa Ndiaye. remercier ñëpp ñoo xam ne ne jàppoon nañu ci réussite congrès bi. Mm. commencé par euh, président de la république son excellence Macky Sall. jàpp na ci lool ba congrès bi am réussite. ministère de la santé. di sant ministère de l'enseignement supérieur également di sant euh, mention spéciale au professeur Bara Ndiaye doyen faculté de médecine parce que fa la amee woon euh, mu jàpp ci yëpp déployer personnel bu doy vraiment mettre tout à disposition ñi ngi koy sant bu baax moom professeur Bara Ndiaye mhm. ñëpp ñi ci jàppoon comité d'organisation bi ku lëm jiim loolu laa amoon li may wax di kontaan ndax te population bi sooy waxtaan ak ñoom ci yenn jàngoro dina tax ñu gën a ñeme kër docteur euh, euh, sant leen gërëm leen bu baax a baax moom mama docteur Doy nekk Diop Samb nekk médecin ORL waaye tamit nekk vice-présidente euh, société sénégalaise bu ORL ca beneen wàll wi nag ñu sant ko moom it gërëm ko bu baax a baax moom docteur falu Niang euh, nekk euh, médecin ORL waaye tamit nekk ancien hôpitaux des internes sant leen bu baax gërëm leen ancien ancien interne ancien interne des hôpitaux sant leen bu baax a baax gërëm leen vraiment ci seen disponibilité ak seen ORT fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen ci déglu bi beneen vendredi yeneen invité ci beneen émission